le Covid euh, état bi mi ngi nekk di di di taxé et que quelque part dañu soxla ay recettes moo tax xëy na euh, taxation yi yokk sur le plan de la fiscalité. bon bu dul fiscalité it xam nga wax nañu fi affaire conteneur tout ni avec euh, post Covid bi pour les vaccins conteneurs yu bëri dañoo dem Chine. en tout mhm. cas pour ñu ñëwaat y avait yu bëri donc loo xam ni joué sur le prix. mais xam nga euh, sama homonyme Babacar Sembène dafa wax lu am solo mu ne il faut qu'on revoie notre politique commerciale. Mm. man je crois que ci politique commerciale parce que même aussi am na yoo xam ni c'est circonstanciel mais am na yoo xam ni sa devient structurel lu tax ma wax ko mooy que ni en tout cas les conditions de la hausse sont devenues structurelles te loolu lu ñu war a mën a régler la loo xam ne dafa dépendre si ñun ñu war koo mën a régler wax ngeen fi ceeb bi wax ngeen fi oignon bi léegi le président Macky Sall dégg nga ko démb Podor. wala mhm. barki démb wax na ni. dañu arrêté euh, parce que ñoom ñëpp dañu dañu dañoo jógandoo jaayandoo xam importation yi arrêté nañ ko mais pourtant ñoom ñu ngi yàqule amuñu kii ñi ngi wax ni productivité wala production record alors que sénégalais yi gisuñu ko bu ñuy dem marché parce que on pense aux sénégalais Sénégal dafa cher. Mhm. gis nga pour dire Sénégal dafa toll moment boo xamee ni. c'est vrai que le président makisal Sall bi mu ñëwee on a dit qu'il y avait beaucoup de hausse si Ablaye Wade moom fexe na limiter prix yi am na yu mu wàññi mais loolu sax doyul parce que ñëpp xam nañ ni quand pour ne donner que cet exemple la mais bari pétrole mais loolu il faut que ñu koy répéter Sénégalais yi électricité bi courant beeg yëpp metti woon mais demoon na ba plus de cent dollars ba bari mais bi mu wàccee ba presque zéro franc it mais est-ce que ñun Sénégalais yi nañ ko suñu consommation donc je crois foofu dañuy wax naan way baril bi dafay yokk di ko wax Sénégalais yi mais si les conditions sont allégées également si commerce bi duñ ko wax Sénégalais yi c'est un problème ba ci gaz bi ñu ngi ko toll à un niveau boo xam ni Sénégal moi je crois que comparé au niveau de vie parce que toujours si pauvreté la ñuy wax mm. toujours Sénégalais yu ndóol la ñuy wax mais Sénégal pour nga lekk fii sax problème la pour nga lekk problème la c'est vrai que dans les pays limitrophes nga xam ni il pleut beaucoup plus am nañu possibilité di produire peut-être beaucoup plus mais ñooñu réglé nañu seeni problème mu lekk en tout cas pour que seen i population du ñu toog di xiif mais fii Sénégal pour nga xiif fi dafa yomb parce que ça coûte excessivement cher dem na ba si tourisme Sénégal les gens préfèrent euh, fii billet billet d'avion rek pour ñëw Sénégal nekk hôtel rek billet d'avion maanaam condition d'arrivée rek gën naa cher ku dem beneen dëkk def fa semaine Sénégal ça coûte excessivement cher te nag on se plaît à cette situation bu ñu yokkee ñu ne non non nañu wàññiwaat alors que cette situation même doit être remise en cause. Mm. parce que ñun Sénégal ni ñuy dundee du dëgg du yoon. on n'a pas les moyens de vivre le loyer mi ngi noonu eh, biir Dakar fii il faut tourner le petit truc là kii te kenn mënu si dara na Euh, à commencer bu ñuy wax mais loolu mooy problème bi en fait man wax jooju moom sonal kenn mënu ci dara. mais non mais parce que solution. di nga wax ministre du mais ça commence par le président Macky Sall. ça commence par lui instruction bu joxe instruction. bu joxe instruction ba léegi amul ba moom loyer jox na après finalement lu ñuy mujj Sénégalais yi dañoo naqaree liggéeyal mais Sénégalais yi niveau de sensibilisation bi des na dëgg la mais nag Sénégalais yi en tout cas mieux. dama lay jox benn exemple wax nañu fi ceeb beeg yëpp ok. mais ceeb bi 2017 ba léegi luñ fi wax autosuffisance alimentaire fu mu mujjee fouraas. mooy sécurité après ñu nekk fii di wax naan non la ñu bay la ñu bay Sénégalais yi du loolu la ñu bëgg moo tax affaire bi jarul moo tax Sénégalais yi lekk ñu comment on peut faire dugal des milliards. ci mm-hmm. ceeb bi xaw ma euh, bëgguma wax prix. des milliards déjà pour la promotion rek dugal si des centaines de millions. dem bay ba mu paree ñuy tàccu daal ne auto en riz affaire yi pare jarul ñu ne non finalement on s'est trompé parce que ceeb ba ñu ba ñu produire sénégalais yi du loolu la ñu bëgg mais pourquoi avant de produire xamoo lan la sénégalais yi bëgg nga def si li si war a def àqale tout sax donc moi je je pense que la situation c'est valable partout la viande yokku na on a laissé faire même bu ñu régulariser wul quand am na loo xam ne yenuwul maanaam. Mm-hmm. regarde regarde ci Korité bi. kilo yàpp xar mais problème poulet le Sénégal yëpp am pourquoi parce que les entreprises là loolu loolu déjà c'est extrêmement grave les entreprises yi jaay poulet ñooy jaay di jaay aliment di jaay poussin di def dumping sur le marché ñëpp gis ko bàyyi si à commencer bu may joxe exemple entreprise yëpp nga xam dañoo réussir ci aviculture c'est en 2004 avec la grippe avière ci la ñu commencé am li ñu am parce que on a arrêté l'importation des cuisses ñu arrêté ko ñoom ñu commencé def des milliards de chiffres d'affaires des milliards de bénéfices léegi dem ba maîtriser marché bi fi mu nekk nii ba nga xam ni bu leen neexee ñooy jaay poussin ñoom ñooy jaay poussin xale yi jékki-jékki rek téye téye seeni i poussin les jeunes entrepreneurs yi créé amatuñu poussin léegi ñoom nag Korité jot ñoom nag ñu yore nag seen i ginaar di ko jaay kenn waxu ci dara. c'est des exemples à multiplier je crois que la politique commerciale foofu lay fekk ci Babacar Faye du Sénégal mhm. il est temps que ñu wax si toog xam ni lii mënul ko Momar oui xam nga man li ma waxoon lay delluwaat directeur commerce dafa wax mu ne way soo xoolee juróomi produit léegi ëpp na juróom sax mais nañ jàpp sax juróom pourquoi juróom waaw néew na de si pourquoi <laughs> daal de première nécessité loi bi dafa wax ne produit bu munti doon su fekkee ne laaj na ko mën nañ ko fixer par voie réglementaire ou légale lu tax ministre du commerce jëlul initiative ne ah yàpp kat problème la mhm. parce que loo xam ne lu ñuy jaay la nañ xool nuñ ko gérer jën noonu la produit de première nécessité ceeb noonu meew noonu su ko noonu et wax liste yi produit yoo xam ne jàpp nañ ne yii il faut que loxo état dugg ci pour mun a soulager askan bi loolu initiative bu ministre du commerce la lu tax defuñ ko bañ nañ cinq rek ñu yem ci cinq ëpp na cinq sax peut-être mais mais mais lu tax boolewuñ ci yeneen yi ñun depuis des années ñi ngi wax ne nañ def li ñuy wax la structure des prix des produits de première nécessité comme ni ñu ko defee pour mburu bi ñu defee ko pour yàpp bi su ko defee kiy jaay Mm. du du du du dina gis boppam ci li muy jaay dina mos. kii ñuy jaay tam bu kii jënd tamit dinañ ko jaay ci njëg goo xam ne dina tolloo ak poosam.